mu nekkoon benn suur boo xamante ni journée historique la woon ci en tant que doomu daara nekk ku tudd Cheikh Abdou Mbacké dëkk Touba nekk njiitu coalition nekkal fi askan wi déposé woon candidature ci conseil constitutionnel ñu waroon ko saytu tey mandataire bi jógee fa léegi ñëw rendre ñu compte ñu ne amuñu sañ-sañ nag toog di xaar ba suba te waxuñoo ak askan wi nga xamante ni mënuñ leen a fay ñoom ñëpp kenn ku nekk gis nañ taxawaay bi mu taxaw si ñun ñi nga xam ñooñu doon ñaanal aussi gis nañ lépp ñi jàppale si gis nañ ko di sant bu baax suñu mandataire demb mi ak ñëpp ñoo xamante ni tey yëngu ci mbir mi mu am man bettuma parce que Macky Sall moo bëggul Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly nekk candidat en tant que doomu daara en tant que dëkk Touba ndax li tax ni bu ma nekki candidat bokk naa si candidat yi nga xamante ni ñoom ñooy daane candidat candidat bi mu tànn muy Amadou Ba ndax xam ne ku gagné région du Diourbel gagné dakaar gagné feneen ak feneen yaay gagné Sénégal te département Mbacké mooy département bi gën a ëpp population ci Sénégal kon tey bu suñu mandataire génnee nii conseil conseil nee ko da nga am ay li nga xamante nii mooy ay nit yoo xam nekkuñu ci fiche électorale bi loolu du dëgg loolu buñ ko waxee du dëgg ndax ñun bu ñuy ne dañoo jël maanaam ki ñuy parrainé laaj ko photocopie d'identité mu jox ñu ko nit nag mu laaj ko sa photocopie d'identité mu am carte électeur nga dugal ko maanaam ci biir ba pare ñu ne la yow ki nga xamante ne moo am carte électeur am nekkul ci fiche électorale bi loolu yënuwul maanaa te amul mu toll ci quinze mille six cent quatre yoo xamante ne dañoo wax ne Cheikh Abdou Bara Dolly ci li nga déposé woon cinquante mille huit cent quatre loolu mooy li nga xamante nii

nga xamante ne say mandataire kenn ku nekk tuteleur kenn ku nekk suppléant tan pare nañ ñoom ñaar muy ñaari mandataire kese nga xam ñaari tour laa def foofu Tambacounda réseau Tamba ñu ne ma ñaar ñooñu kat kenn ki pare na wula kon li ñuy wax lépp dara du dëgg lii nag maa ngi doon wax yenn politiciens yi nga xamante dañoo waxoon ni fiche bi baaxul ñu du ko wedd mais fiche électorale ku si dem Macky Sall da lay gagné fiche électorale baaxul maa ngi woo opposition bépp ñu jóg taxaw pour masser xeex euh, li nga xam mooy fiche électorale bi ñu wut fichier bu baax boo xam moom la ñuy jox ñu mën dem élection buñ ko deful ku dem élection Macky Sall da lay gagné damay wax li Abdoulaye Wade waxoon 2019 fichier bi fichier Macky la parce que deux fichier lañ yor bu leen neexee ñu génne fichier bu baax bu leen neexee ñu génne beneen fichier bi Macky lu yàq si réew moom moo ko yàq man nag sama ambition ci réew mi du Macky Sall moo ko mën a baare pour xañ ma parrainage dinaa fexe xeex tout ba keroog may faatu dinaa ko fexe jëlee ko fi agressivement parce que dafa toroxal Sénégal dafa toroxal askan wi ndax man gis naa ni ñi ñu bàyyi ñu jàll ñëpp candidature tey kenn ku nekk xam na ne maa li ëpp dayo politique maa li ëpp moyen politique maa li gën a jege askan wi ñooñu ku nekk leer na la mais moo choisi ay candidatam ndax dafa wax ne juróomi candidat la war a bàyyi ci yeewu askan na ngeen bàyyi baax li ma a bàyyi ci yeewu askan wi pour que watu yeewu askan tasaaroo mu am ñeneen ñu bàyyi waat ak ñeneen ñu bàyyi waat ngir que maanaam fexe ba nga xamante moom dana sàcc élection yi ba candidat mën a jàll looloo duñ ko accepté waxtaan ak fan yi war nañ koo jël ko jël ba baare route bi pour chaque élection 2024 teg fi ku fi pour continuer dictature daan ko def. Fall donc man maay mandataire coalition nekkal fi askan wi bu Cheikh Abdou Bara donc ñi ngi doog a conseil constitutionnel donc nous ñu defee vérification suñu pare suñu liste parrainage énergie, euh, li nga xamante ne daal moo ci logiciel bi dafa ne plus de 15 millions yoo xamante ne nekkul ci fichier électoral bi wala boog am ay euh, par rapport au fichier électoral bi donc 15 euh, xam ngeen ne bu 000 et quelques maximum bi donc minimum bi nga ne lañ lay amati donc looloo tax ñoom ñu ne que recalé nañ euh, coalition bi ak Cheikh Abdou donc jox nañ ñu nag clé clé bu nga ne def nañ ci détail euh, léegi bu ko defee bu ñu quartier général dinañ temps saytu ko xoolaat ko après lu ci am revenir yor nek mandataire président Idriss Seck and ak Alassane Ndiaye mi nga xamni mom mo yor lepp li nga xamni moy informatique donc ñun déposé woon nañu 58 975 alhamdulilah pour les régions yi nga xamni ne dañ ñu doon laajte pour plus de 2000 lolu régler nañ ko mais nombre de doublons externes yi ñu am euh, nombre de rejets bi ñu am bu nekkul ci fichier bi te ñun lolu mu jaaxal ñu parce que ñi ñu yor ñep ñu ngi ci biir fichier bi parce que on a travaillé avec un logiciel bi nga xamni ne dafa ñuy léral ni nit ki mu ngi ci fichier bi